wax na ne moo gën ci fan yi ci ci ci ci maanaam fan yëpp moo ci gën waaw rasulullah sallallahu alayhi moo wax loolu suñ borom giñ ci fan yi wax ne wal fajri wala yaaleen ashr wala yaaleen ashr mooy fukki guddi yi nga xam ne ñoo jëkk ci weeru eh, tabaski muy weer wi nu ne yonente bi sallallahu alayhi ni ma ko waxee wax ne ma min ayaamin al amalu saalixu fihinna ahabu ila allahi min hadihi al ayaami al ashr wax ne amul bis yoo xam ne jëf ju baax gën na ca gën na ca gënal na ca suñu borom maanaam suñu borom jëf fi mu ko gën a bëgge mooy fukki fan yi nga xam ne moo jëkk ci weeru tabaski saxaaba yi laaj ko yaa rasulallah wala jihaadu fi sabilillah ba ci jihaad fi sabilillah sax maanaam jihaad ci yoonu yàlla sax eh, dégg nga def ko ci yeneen bis maanaam jëf ju baax joo def ci fukki fan yi moo ko gën yonte bi ne a ah kay waral jihaad fi laa ba ci jihaad li muy rëy rëy ak li muy am am sol fa fa suñu bon ko tax la itam teewul jëf ju boo ko defee fii ci biir fan yi wala nga def jeneen jëf ju baax ci fan yi moo gën gënal suñu bor moom la yàlla gën a bëgg ci li ngay def lépp dégg nga kon euh, fan yu am solo la muy fukki fan yi ab jullit nag dafa war di màng dégg nga bis yu mel nii ndax àdduna dafa gaaw te gàtt te yàq jëf bari lool te bakkaar bari lool ak yi fabbe ak yi yàqale nit ñi moo tax la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne maanaam suñu borom am na jamono yoo xam ni dafa am ay nafaxaat maanaam fan yoo xam ni sun borom da ci ubbi bunti yërmandeem nga xam ne loo def rek mu gërëm ko loo def mu nangu ko loo def mu ful ko loo def mu rëy moom fan yooyu nag dafa ak ak waxtu yooyu ak saa yooyu suñu borom yonent bi dara wax ne neen ko fuglu te da cee jéem a def lu baax yooyu nag mooy lu mel ne fan yi nu nekk rek kon fan yu am solo la muy fukki fan yi yonent bi wax na ba tey ci beneen xadis ne ma min ayaamin azamu inda allahi wala ahabu ilayhi min alcamali fihinna min hadihi alcashar fa akthiru fihinna min altahlili waltakbiri waltaxmid wax ne li nit ki jëf ci ci bis yëpp la ci yàlla gën a bëgg maanaam fan yi boo fi jëfee jëf lu mu mën a doon ak yàlla da koy bëgg da koy neex te ab jaam <laughs> li li war a gën a bëgg rek mooy lu neex yàlla ginnaaw yonte bi nee na jëf yoo gën yoo mën a jëf ci beneen bis bu mën a doon rek nga jëfe ko ci fan yi fukki fan yi nu ne mooy fukki fan yi weer yi jëkk ci weer tabaski nee na moom mooy gën a rëy fi yàlla moom la yàlla gën a bëgg itam moo tax yonte bi daa wax daa wax ne na ngeen baril tudd yàlla mooy di wax la ilaha illa allah ak di wax allahu akbar ak di wax alhamdulillah yooyu neen ko baril ci fan yi dégg nga xadis yu bari root na ci ak ay wax yu bare bare bari yonte bi sax àgg na ci wax ne euh, maanaam ni ma ko waxee rek wax ne maanaam xadis yooyu ak yi demee ni moom day tegtale ne fan yi moo gën ci fan yi ci ci at mépp dégg nga moo tax jëf ju baax am ci solo lool ndax loo ci jëf lu mu néew néew yàlla da koy bëgg da koy day neex suñu borom tabaaraka wa taala te suñu borom da koy ful te day rëy fi moom it moo tax yonent bi daa wax na ngeen tudd yàlla lu bari ci moom muy bis boo xam ni te muy fukki fan yoo xam ni bis ba ci mujj muy juróom-ñeenteelu fan bi mooy bisu arafa dégg nga bisu arafa bis bu am solo la dañ ci ñëw léegi waaye ma leeral foofu rek ñu bari fii ci Sénégal dañuy jaawale jàpp ne arafa bisu arafa ca Makka mooy sunu arafa déedéet bisu arafa mooy juróom-ñeenti fan ci weeru euh, tabaski rek réew mune ne moo xam senegal wala Amérique wala Italie wala France wala Arabie Saoudite wala Syrie wala Asie wala Chine wala feneen fu mu mën a doon seen juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski mooy. mooy yawmu arafa ci ñoom waaw day am ñoo xam ne dañuy jaxase jaxase yu metti ci ñàkk xam rek moo leen ko jural mooy wane ne ginnaaw ña ngay ñi waa Màkka ñi ngi taxaw bisu bisu arafa ci misaal te ñun dool juróom-ñett fan la ci ñun loolu kon loolu ku xamul dara rek mooy wax loolu mooy ñun xam ngeen ne julli moo gën a foor koor moo gën a foor aj màkk te julli mënuñ ci ànd ak ñoom waa Màkka tey ki bëgg a ànd ak ñoom ci bésu arafa daa waroon bu ñuy julli ñoom nga xam ne bu ñuy julli fajar ñoom waa mag noonu booy toll fay une heure deux heures daanaka ci noonu ci guddi léegi loolu waxtu woo kon nga waroon julli fajar te boo jullee fajar fi ne amoo julli kon wuute gi eh, dafa am te loolu li ko gën a firndeel mooy xadisu Kurayb bi nga xam ne moom mm, yàgg nañ ko wax. te na sayidna abdullah ibnu abbas dégg nga ba kuréy bu ñëwee jóge ca muawiya saam mu ne ko nun de gis nan ci biir sàngam bu bokkut ak ba waa saam gis te lool li ñu li ñu yónte bi sallallahu alayhi wasallam digaloon mooy nuy nu nu jàpp ci noonu sunu gisu bopp rek loolu ci la borom xam-xam yi tëral wax ne maanaam wuuteeg ixtilaaful mataali lañ koy de mooy wuuteeg jamono yi ak wuuteeg temps bi ak wuuteeg heure yi loolu day feeñ maanaam ñenn ñu ne seen bisu bopp lañu am loolu mooy li gën a mooy li gën a dëgër ci li borom xam-xam yi jàpp kon bisu Arafa mooy juróom-ñeenti fan ci weeru eh, tabaski tabaski réew mu ne seen juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski mooy seen bisu Arafa bu wuuteeg ba waa Màkka di taxaw it teewut juróom-ñeenti fan mooy seen bisu arafa bisu arafa boobu nag bis bu rëy la bu am solo te xam ngeen ne ci eh, fukki fan yi ci la ci la ci la ci ci la nekk te itam xam ngeen ne fukki fan yi mboolem jaamu yàlla jaamu yàlla da ci tàppe des na ci julli des na woor fi ne fukki fan yëpp lañ bëgg ko ko woor boo ko mënee moo gën yonte wax na ne benn bis boo ci woor dégg nga dañ la jégal bàkkaarub at xëy na tey des na ci saraxe des na ci aj màkka kon xeeti jaamu yàlla yëpp dañ cee daje am na xeeti jaamu yàlla yu bari itam yuñ mën yu nit ki mën a def ci fukki fan yi bokk na ci la ci jiitu mooy tuub jéggalu suñu borom tabaaraka wa taala suñu borom waxoon na ne yaa ayyuha alladina amanu tuubu ilallahi na nasuha wa tuubu ilallahi jamian ayyuhal muminuun doomu aadama fu mu toll dafa war di jégalu ndax bàkkaar yi dafa yomb te mën a bari te bàkkaar mooy lii jafe-jafeel mbir mooy lii eh, gàkkal xol bàkkaar mooy li nga xam ne sa xol bu gisul leeru yàlla rek bàkkaar yu baree ko def kon jégalu dafa war a jamono jën waaye rawatina ci fukk fan yi kenn ku ne ci noonu war naa delluwaat tuubal yàlla rëccu mboolem lu mas a def ci lu bon te suñ boroom moom buur bu baax la boo xam ni saa yoo ñëwee jéggulu rek moom dalay jéggal te day bëgg ci jéggulu gi nga ko jéggalu moom subhanahu wa bokk na ci yaamu yàlla yi ñuy def ci fan yi mooy aj màkk ak umra yooyu yëpp des na ko ci def ak farlu ci eh, julli juróom ak mboolem jëf yu baax yi ak naafila yi rek yépp des na ko def des ko def ci fukki fan yi loo ci def rek mooy gënal yàlla moom la yàlla gën a bëgg moom mooy gën a neex suñu boroom ci nga defoon ko ci beneen beneen bis tudd yàlla rawatina tudd nga xam ne moom eh, suñu borom dafa wax ne na ngeen koy baril wax waaye yonent bi dafa wax ne na gën a bari ci fan yi fukki fan yi fa aksiru fiihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid suñu borom wax na ci alxuraan sax ne wa yadkuru smallahi fi ayyaami maalumaat ayyaam maalumaat mooy mooy mooy mooy ayyaamu tashriq ñenn ñi moom lañ wax waaye am na ñu ne mooy fukki fan yi rek da ciy dellu day dellu ci fukki fan yi di bari di wax laa ilaha illa allah wala astaghfirullah alazim wala julli ci yonte bi allahuma salli ala sayyidina muhammad anam goo ko am goo ko mëne rek ak alhamdulillah te yëpp nga ànd kook sa xol teew ak allahu akbar rawatina takbir dañ ko bëgg lool ci fan yi bu ko defee boo mënee woor dégg nga fukki fan yëpp maanaam juróom-ñeenti fan yi bokk bis ba jëkk ba ca ba ca bisu arafa wu moo gën ndax bisu tabaski moom kenn du ko woor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soxna wax na ne am na ñett yoo xam ne mosu koo bàyyi mooy woor bisu asura ak woor juróom-ñeenti fan yi ci tabaski yi jëkk ci tabaski ak ñetti fan ci weer ci weer wu ne ñeent la sax ak ñaari rakka yi ñu julli rakka yo julli yor-yor loolu mosu koo bàyyi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu woon da ko daa woor. te itam bu fekkee ne mën nga ko itam nga nga tabaski tabaski itam neen ko xamee sunna la su feddaliku ci képp ku ko man julli gi itam moom it niñ ko xamee sunna la su feddaliku itam ci képp koo xam ni ah, am nga man ci bisu ci bisu tabaski ga yow mu ma ko waxoon léegi rek bis la bu rëy boo xam ni moom mujj ci bis yooyu te ci la diine ji mate ndax al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislaama diinan ci bis boobu la wàcc woon ci li Seydina Omar radiyallahu anhu wax te itam mooy bis boo xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax boo ko wooree moom bisu arafa dañ lay jéggal mboolem at ma ko at ma weesu ak at mi jublu si li nga ci def lépp maanaam maanaam boo weesu boo wooree bisu arafa bii nii te mooy juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski juróom-ñeenteel fan bi moo xam dëkk boo ne rek moo xam doonte wuute nag waa Makka bis ba ñu def arafa boo ko wooree ne bi nee na yu kaffiru sanatal maadiyata wal baqiya ay riwaayaat yu bari la mooy yàlla dalay jéggal faral la mboolem bàkkaar boo ma sa ci at mee weesu mboolem loo nara a def ci bàkkaar itam ci at mi jublu si dañ koy dañ koy far dañ la koy jéggal itam waaw kon bisu euh, jéggal bis bu ñuy jéggale ay bàkkaar la yoo xam ne bis bu ñuy gorele itam ci sawara la waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soxna Aysa nee na mas naa wax ni ma min yawmin aktharu min an yu'tiqa allahu fihi abdan min annaari min yawmi arafa wa innahu la yadnu summa yubaahi bihim almalaika fa yaqulu ma araada haula maanaam bisu arafa bu ñëwee sunu borom dana ci goreel loo xam ne dégg nga du ko goreel ci beneen bis goreel mooy ñi nga xam ne dañu waroon dugg sawara ñu jéggal leen def leen ay nit ñoo xam ne ñu dañu dugg àjjana am nit ñoo xam ne dañuy def lu bon topp seen bànneex tooñ seen bopp waaye bis yu mel ni ci la yàlla ay tànn mbooloo mu bari ay junne junne nit yoo xam ne lim ciy jéggale nga xam da leen di bind ñoo xam ne faw dañuy dem àjjana ak donte def nañ seenu dund sànq nañ ko ci lu bon dégg nga lim li muy goreel ci bis bi du ko goreel ci beneen bis kon bis bi lu bari ci ay nit suñ borom dana leen def ñu nara ñu naroon dugg sawara mu génne leen maanaam bind leen ci waa àjjana nga xam ne fu ñu faatoo rek mu yóbbu leen àjjana yonent bi nee na suñu borom du yem ci loolu waaye day jege day gën a jege nit ñi loolu nag mm, nam leen ko nam koy defee moom jërul lijjanti waaye dana leen gën a jege di puukarewu eh, maanaam nit ñi ci malayka yi waa waa arafa di leen wax ne sama gaañi day ngi nii di samay jaam lam leen digaloon ña nga ca moo tax bis bu am solo la boo fekkee fekku la Makka foo mën a ne ci adduna bi rek na nga ko woor yonent bi daa wax ne daa wax ne siyaamu yowmi arafata axtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati baadahu woor weeru arafa day day far mboolem bakkaar yi nga defoon ci at mi weesu waaye mboolem bakkaar yi nga xam ne itam moom nga nar a def ci at mi jublu si nga xam ne ñëwagut da koy far kon nit ki bu fi ne bu farloon at mu ne mu woor bisu arafa rek fi mu ne Eh, maanaam mën nañ ne moom du deesu ko bind la ci bàkkaar ndax at ma weesu lépp dañ koy far bu fekkee defoon nga ci dara at mi ñëwagut itam loo def dañ koy fara waaye loolu nag bu nekk bu mukk buntub nag fas yéene boo boo ci génnee defaat yenn ay bàkkaar yooyu ngir ne faral nañ la ko déedéet loolu nag ab jullit baax bu fonk diinam du def loolu bis bi itam yonent bi sax wax na ne fi ne bisu arafa même boo wóorut boo téyee sa nopp ba dégg dégluwoo ci lu xaraam téyee sàmm sa say say bët ba gisoo ci lu xaraam sàmm saw làmmiñ ba waxoo ci lu xaraam des na la jégal sa bàkkaar yépp inna haada al yawma man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisaanahu la loolu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci xadis bi ibnu abbas abbas kon boo fi sàmmee say cër rek ci bis bi des na la jégal say bàkkaar te loolu xam nga ne moom yomb na wax dëgg yàlla kon bis bu am solo la bu rëy la moom bisu arafa boobu nekk noonu bokk na ci liñ ciy def ci bisu arafa bisu arafa mooy ñaan yonent bi wax ne xayru duaa yi duaa u yowmi arafa ñaan yi gën ci ñaan yi maanaam ñaan gi gën ci ñaan yi mooy ñaan gi nga ñaan ca bisu arafa waaye da ca teg wa xayru ma qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir maanaam li gën ci li nga xam ne wax naa ko man ak mboolem yonente ya jiitu woon mooy laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli mooy loolu nga de ko wax ci bis bi dara gënu ko ndax tudd yàlla yonente suñu borom eh, wax na ci xadis su qudsi bu fekkee ne dalaa dangaa nekk di tudd yàlla rek ba mu teelaa ñaan say soxla li nga bëgg lépp dinaa la ko defal waaw loolu suñu borom a ko wax ci xadisu qudsi bu ko defee ibnu abdul bar dara wax ne ginnaaw yonente bi nee na ñaan gi gën ci ñaan yi mooy ñaanu bisu arafa ñaan gi nga ñaan ci bisu arafa loolu dañ ciy dégg ne kon bisu arafa bis bu ñuy nangoo ñaan la lool ci ñaan yàlla nangu ko waaye nag la gën ci la nit ki def ci bis boobu mooy di wax laa ilaha illa allah di tudd yàlla <coughs> ak di wax allahu akbar allahu akbar it moom takbir lu ñu sopp la ci fan yooyu ba ci ba ci fan yi tabaski gi ba ca ñetti fan yi ci toppit ay am tas kon loolu daal mooy gàttaluk xéewal yi nga xam ne moo nekk ci bis yi kenn ku nekk ci noonu daal war naa farlu te gën a dollee farlu te xam ne àdduna moom jeex na te itam alaxira moom mi ngi dëgmal si te lépp loo am yow mal xiyam fii nga koy liggéey su ko dee loo mën ci lu baax nag nga da ci farlu di ko def ngir yàlla lépp looy def nga def ko ngir yàlla